loolu firndeel na ni li ñu nekkee ci terrain bi ñu ngi koy def na mu waree ndax tey jii su fekkante ni woon amul lu ñu jàpp duñ fi taxaw di lakk waaye kon dañ leen di jaajëfal di leen remercier di féliciter tamit waaye tamit loolu dafa firndeel ni ba tey trafic bi tamit am na donc li ñuy war de def tey jii mooy ne ñaax tey jii suñu suñu suñu askan wi euh, surtout ñi nga xamante ni mu ñu gën a féete ndaw ñu gën a wàññi tey jii di ko ñu bàyyi sax di ko di ko di ko jëfandikoo ndax loo xamante ni mënula yóbbu fenn foo xamante ni mën nañ ko wax ni fu baax la dañuy eh, def tout pour que kenn bañ cee dugg wala kenn bañ koo tàmm ba mu lay andil yenn problème yi ndax tey jii bu fekkente ni trafic bi am na fi service yi nekk ci di ko xeex ak yooyu defe naa li gënoon mooy ne tey jii lépp bañ a am fenn ñu bañ ko gisati fenn waaye nag loolu dafa laaj xëy na engagement état comme service comme waa douane ko defee tey jii yeneen service ñoom it ñoo ngi def seen kéem kàttan pour que li nga xamante ni mooy euh, lii di chanvre indien ak leneen ak leneen ay xeetu euh, yoo xamante ni tey ji baaxul ci wérgu yaramu nit ki loolu yëpp mu mën a euh, deñ waaye yaakaar naa ni tey ji am na tam liggéey boo xamante ni war nañ ko def ndax tey ji ku ci nekk ak foo mënti nekk rek am nga ci rôle boo xamante ni war nga ko ci mën a jouer muy toog waxtaan ak askan wi waxtaan ak population yi ba lii daal mën a génn ci région bi waaye tamit génn ci Sénégal gi yëpp ndax gisuma tey jii euh, jëfandikoo ko ban intéret ak lan la mën a yokk tey jii ci koomu Sénégal ndax au contraire sax fi ñu toll nii nga xamante ni ñoo ngi génn ci ñu ngi ñu ngi ci biir Covid bi. nekk na situation boo xamante ni xëy na bu trafic bi développé trop dana am beneen koom bu muy développé ci suuf boo xamante ni xëy na du jaar ci yoon. te yaakaar naa ni fi ñu toll nga xamante ni euh, gouvernement bi tëral nañu tey jii plan d'action prioritaire pour relancer tey jii suñu koom li ñu soxla mooy lépp luñ ciy dugal ak lépp lu ciy génn mu doon loo xamante ni lu ñu jëme kanam la xëy na nag dellu siwaat euh, ci mbir mi nga xamante ni mooy li nga doon wax ci île yi ndax tey jii xëy na boo seetee région bi am na foo xamante ni am nañ ko frontière ak euh, fii di euh, kii république sœur de Gambie waaye tamit am nañu euh, ay île maanaam ay dëkkuwaay yoo xamante ni ndox moo leen wër te gis nañ ne tey jii ci côté boobu xëy na bu fekkente ni li ñuy am ci dëkk yi nga xamante ni du île bu fekkente ne lañ fa soxla yëpp di commissariat di douane di gendarmerie di sapeur pompier bu fekkante ni loolu yëpp am nañ ko ci île yooyu ci gox-goxaan yooyu xëy na loolu lu bari mën na ko cee wàññi. kon yaakaar naa ni tey ji programme spécial bi fi président de la république waxoon ci euh, accident bi ñu amoon ci 2017 bu mu juumul ci Bitenti bi mu ñëwee dafa lancé woon programme spécial île boo xamante ni tey jii il yi nekk ci euh, ci ci région de Fatick yëpp bu ñu leen dugalee ci programme boobu normalement ñoom situation bi ñuy dund dana changer bu baax a baax te yaakaar naa ni loolu tamit am na structure yoo xamante ni ñu ngi ciy liggéey ci loolu rek duñu mën lu dul rafetlu loolu jàpp ci ñun ñëpp ba li nga xamante ni moo war a mën a nekk suñu handicap wala loo xamante ni daf ñu war a nekk lu ñuy gàllankoor loolu yëpp ñun ñëpp ñu dugal ci suñu loxo taxaw ci ba ñu am ci résultat bi ñu bëgg. donc effectivement tey ñëw nañ fii ñu lakk yamba bu bari ak ay garab yu baaxul yoo xam ni service douane yi nekk ci région de Fatick dañ ko jàpp euh, loolu ay produits la yoo nga xam ne nii baaxul ci nit baaxul ci suñu santé mm. baaxul suñu économie donc buñ ko jàppee duñ ko dugalaat <laughs> dans la dans le marché euh, di ko di ko consommer loo des Sénégal suñ ko jàppee liñ mën a def mooy yàqu ko ba kenn du ko mën a jëfandikoo tey et buñ gisee ni ko ñun ñi ngi jàpp di lakk ñeneen di indiwaat ñuy jàppaat aussi day wane ne rek ñun fu ñu toll waruñu suñu vigilance waruñ ko bese les gens euh, sont là nit ñi ñi ngi ñi ngi def ñu ngi continuer di def waaye ñu ne découragé wuñu voilà buñ demoon ba trafiquant amatul sax du tere ñu saa yu ñu xëyee nañ soo suñ tonu taxaw fi ñu war a taxaw donc d'autant plus que na comme trafic bi bi ngi am donc ñun wax dëgg yàlla ñu ngi nekk toujours di di def lu ñu ci war euh, quantité yi nag mi ngi toll ci boo xoolee ci yamba bi mi ngi toll ñetti tonnes yu teg ñetti tonnes yi teg na ay kilo euh, garab yi aussi mi ngi nekk ci euh, Euh, voilà mi ngi nekk 76 millions 76 millions de francs CFA mooy valeur garab yi euh, médicament kii chanvre indien bi mooy yamba bi mi ngi nekk trois tonnes yu teg euh, ñaari téeméeri kii. waa effectivement boo xoolee par rapport ak incinération daaw bi ñu defoon daanaka ci waxtu wi daaw yamba bi valeur quantité bi mu ngi tolloon ci ñaari tonnes yu teg ren am na ñetti tonnes yu teg yu ñu lakk. nga dem ak ci garab yi ñoo amoon valeur 1 milliard ren ñu ngi lakk valeur 76 millions. donc mu ngi nekk lii yokku na lii wàññeeku na eh, loolu li koy expliquer mën na nekk ñaari yëf mën na nekk ni peut-être service bi le fait que chaque jour muy nekk di traquer ñi nga xam ne ñi ngi def lu warul am na ñu mu découragé yaa a aussi des acteurs yoo nga xam ne mënatuñoo dem parce que ñi ngi nekk ci prison am na ñoom ñi ngi leen jàpp ñu ngi purger des peines dans les dans les maisons euh, euh, donc euh, damay profiter aussi ci parenthèse boobu pour remercier procureur mi fi nekk parce que ñoo ngi ñoom aussi ñi liggéey liggéey bu am solo ci ci loolu Euh, leneen li ko mën a justifier tam am na ci loo nga xam ne ñun mënuñ ko maîtriser mi ngi dépendre ci ñi nga xam ne ñoo ngi dugal ñu ngi génnee ñoom ñoo xam li tax yàmbaa ji yokk garab yi wàññeeku xëy na seeni intérêt peut-être côté bi ak côté bee kenn xamul waaye ñun daal li liñ ci mën a wax mooy tant que euh, douane mi ngi am ñun dinañ nekk fi ñu war nekkoon di liggéey li ñu war a liggéey bu ñu demoon ba toog at jàppuñu dara lakkuñ dara yi du tax ñu dem tëdd di nelaw jour bu ñu xëyee dinañ soo suñu ay tenue fi nga war a taxaw nga taxaw fa pour liggéey parce que rien que l'effet dissuasif même boo jàppul aussi te loolu la ñuy ñaan yàlla ah. ñu ñun liggéeyuñu pour di jàpp nit ñi pour yëf yi di dugg suñu sañoon dañuy taxaw ba nga xam nit ñi dañ xam ni comme doigt na ngi fi dootuñ dugg parce que tant que mi ngi dugg rek xëy na am lu ñu rëcc te bu ñu sañoon dara du rëcc di dem ci ci askan bi donc nag ñun effet présence dissuasive boobu lu ñuy bàyyi xel la donc mu yokk ak mu wàññeeku mu amatul loolu ñun de euh, conditionné wu suñu liggéey saa yu ñu xëyee daal ñu ngi def li ñu war Ah, di ñaan yàlla aussi ñu dem ba comme ni ma ko waxee rek dootul amati kenn dootu ko jëndati waaye douane moom même bu amatul it ñun saa yu ñu xëyee ñu ngi ci daal.